abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am di fas yéene ànd ak yéen ci benn compte muy léeb léeb nag ñu bëree bëri fuñ ko tudde rek dañuy jàpp ne ree moo ca war a tege naam léeg-léeg am na léeb yoo xam ne dañuy reeloo waaye léeb bi gën ci léeb yi mooy léeb bi nga xam ne dana la reeloo waaye dana la dana la jàngal dana la yee li ñuy tuddee ci tubaab joindre lutil à l'agréable waaw léeb moom looloo ci gën euh, mu nekk loo xam ne dafa doxoon ci diggante bawal bawal ak kajoor kajoor ñoom ñaar nag dañuy faral di naxante am na mbokk mu ne ma ñaare naxante yi dox ci diggante bawol bawol ak kajoor kajoor kenn du gañe sa moroom du gañe sa ndax lu kenn ka teg rek keneen ka teggi ko lu kenn ka aj keneen ka ajji ko loolu daal mooy li ci nekk moom dañuy wax ne mbokk yi kon ñu ànd digloondoo léeb bi aywo dañuy wax ne bawol bawol bi ak kajoor kajoor bi dañu àndoon ci digg àll bi di dox ba si yàgg ñu yem ci benn njëgg njëgg nag moom la tubaab di wax caravane te caravane mooy mbooloo mu ànd di tukki di voyager moo xam dañuy dox tànk wala ñu war fas wala mbaam wala ay gëléem waaye dal mooy mbooloo mu ànd di tukki bool bool bi ak kajoor kajoor bi yam ci njëgg bi ñu nekk ci digg àll bi xam naa tukki bee sori coono dab leen ba ñu tëdd di nelaw waaye niñ tëdd di nelaw ki seen wet ñi ngi teg ay saako suukar yu bëree bëree bëri mooy sucre rekk bawol bawol be kajoor kajoor bi yam ci euh, njëgg mi ni ñuy nelawee waaye suukar si ni mu tegoo seen wet ñu ne lii kay du mbuur mburaake la suukar saa ngi ne xas te seeni boroom a ngi nii di nelaw lii kay bala ñoo yeewu ñun mën nañ koo randal làq ko ci bërëb ñu ne waaw lii fan lañ ko mën a làq ñu geestu rekk yam ci benn teen ñu dem yërndu gis ne teen bi xóot na lool waaye sakk na amul ndox ñu ne jeex na lii kay wokkatu bu dajee gestu la saako suukar yi mën nañ kaa dugal ci teen bi te dara du ko jot ndax teen bi amul ndox ñu daal di randal déplacer saako suukar yi dugal ko ci teen bi di xaar nag mm, waa caravane bi waa njëg bi yeewu en attendant ñu yeewu nag ñu dem làqu làqatu foo xam ne ñoom dinañ mën a xam lépp lu xew ci waa njëgg mi te waa njëgg mi du duñ leen xamal dara waaw léegi nag ñu daal di dem làqatu waa njëgg mi yeewu ne waaw ana suñ suukar yi ñu xool xool xool gisuñ fenn ñu wër wër wër àll ne seen ndaw waaye nag seen xel dajul ne ci teen bi la nekk ndax duñ ko foog bi ñu wëree wër ba naagu ñu ne ah nañ continuer suñ yoon rek xam ne nattu bi moom am na ba pare mënatuñ ci dara biñ continuer ba dema dema dem ba sori ba bawol bawol bi ak kajoor kajoor bi xam ne ñii duñ dëppaat ñoom ñaar ñu ànd nag dem yër teen bi gis seen suukar ñu ne waaw léegi suukar saa ngi nii liñ doon rawale léegi daanaka raw na waaye nag nuñ ciy jote bawol bawol bi ak kajoor kajoor bi kajoor kajoor bi wax bawol bawol bi ne ko loolu yomb na ni ngay def mooy dangay jël buum nga takk ma ci yoor ma ba ma dugg ci biir teen bi su ma duggee man dinaa mën a tekki sama bopp su ma tekkee sama bopp buum googu may jël di yeew ci saako saako bu ma yeew ci buum bi rekk nga xëcc poli ko mu génn bawol bawol bi ne ko waaw kay wax nga dëgg léegi nag bawol bawol bi jël buum jël goj bi yeew ci kajoor kajoor bi ba mu dëgër mu yoor ko ci biir teen bi ba mu egg fa teen ba yam moom kajoor kajoor bi daal di yeewi boppam di jël euh, buum bi di yeew ki saako euh, bawal bawal bi di poli muy génn saako par saako léegi nag sudoon doon fukki saako la bi ñu demee ba ci fukkeelu saako bi ak juróom-ñeent maanaam bu doon vingt la vingt saak la biñ demee ba ci dix-neuvième saak bi bawol bawol bi yoor buum bi kajoor kajoor bi yeewal ko ko mu poli mu génn ñu dem nag ba mu des dernier saako bi muy muy muy vingtième bi wala ñaar fukkeel bi dernier saak bi muy saako bu mujj bi ci la kajoor kajoor bi ne ah gis nga bawol bawol ak ni mu yeewoo saako bii nga xam ne moo mujj su ma ko bàyyee mu génne ko xam nga nu muy def damay bàyyi ci biir teen bi te su ma bàyyee ci biir teen bi dina ma fi suul te maa fi faatu ngir rek mën a aaki moo suukar si kon nag ni may def mooy saako bu mujj bii dama koy teppi daal sotti suukar si takk sama bopp ci biir saako bi du fo du xam ne suukar la mu daal di sotti saako bu mujj bi daldi dugg ci biir saako bi daldi fexe ba yeew ci boppam waaw bi mu yeewee boppam nag bawal bawal bi poli ba saako bi génn pour moom nag saako suukar la génne te fekk nag nit la génne te bàyyiwu ci xel pour moom foog na ne nit kaa ngi ci biir teen bi mu ne waaw kay léegi ginnaaw kajoor kajoor bi jàppale na ma ba ma génnee saako yépp léegi nag ni may def mooy moom duma ko génne naa ko bàyyi ci biir teen bi ndax bu génnee rek séddoog man suukar si te su boobaa du sakkan kon naa déplacé suukar yépp bu ko defee ñëw suul ko ci teen bi léegi nag muy déplacé saako yi benn ñaar ñett ñeent ba fukk fukk ak juróom fukk ak juróom-ñaar juróom-ñett fukk ak juróom ba ñaar fukk vingt saag yépp mu déplacé ko te xamul ne nag vingtième saag ba nag euh, kajoor kajoor baa nga ca biir nit la déplacé te yëgu ko ba léegi moom mi ngi foog ne kajoor kajoor baa nga ca teen ba mu ne xam nga du may def kajoor kajoor bi naa ñëw suul ko ci teen bi fekk na kajoor kajoor bi moom it ku yeewu la ba bool bi jëlee saako yépp mu teg ko fu ruqe di ñëw nag ne day suul teen bi xam nga day jël temps kajoor kajoor bi ci la profité nag moom it déplacé waat saako yi déplacé déplacé déplacé déplacé déplacé fu làqu bi mu déplacé fu làqu nag bawol bawol bi suul teen bi ba noppi rek dem fam tegoon saako suukar yi gisu ko mu ne xii sama waa ji dama ko doon jéem a jaay mboŋ ak muus waaye moo ma gën a yeewu de ndeke man la may suul ab teenu kase laa doon suul waaye suuluma nit ci la xii moom de déplacé na suukar yi te man xaw ma fan la ko déplacé waaye mu xalaat xalaat xam ne ki déplacé lu tol noonu ci suukar dina xalaat euh, bëgg am fu mu ko sëf ndax ñoom ñaar xamante nañ kenn ku ne xam na bañ fay ñëw yoruñu woon fas yoruñu gëléem yoruñu mbaam benn moyen de transport yoruñ ko mu ne waa kajoor kajoor bi day jéem a dof doflu waaye dina xam ne maa ko gën a mboŋ maa ko gën a yeewu déplacé na suukar yi waaye fi mu ne nii soxla na fu mu ko sëf ci lay ŋaax nag di ŋaax ŋaaxlu di mbaam mbaamlu bi mu naan ŋaax ŋaax ŋaax ŋaax rek fekk kajoor kajoor bi mi ngi doon wut moyen de transport war waay mbaam wala fas wala benn moyen de transport pour mu déplacer suukar si ci la kajoor kajoor bi ne tëll jàpp ne mbaam la ba mu ne tëll rek yam ci bawol bawol bi mu ne ko <laughs> ah, kàccoor bi da ma doon jéem a teg xel maa la gën a yeewu fuuf ñëwal indi suukar si ñu bokk loola day wane ne bawol bawol daal ak kajoor kajoor daal ñoom ñaar xaw ma ku ci gën a yeewu mbokk yi yéen lañ koy bàyyeel ngeen àtte di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di aimer ndax fala njëriñ yey gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.